xanaa ginnaaw bu ñu sant remercier également population Boukhatoul Moubarak remercier chef de village bi Saliou Djeng, ak tous ces chefs de quartier remercier association bi remercier ICP yi nga xam ñoo ci ñaari gox ñaari poste de santé yi ci gox bi remercier également waa hôpital Matlaboul Fawzeyni ci seen déplacement bi ñu déplacé wu ñëw fii pour suñu journée don de sang bi ak consultation gratuite bi ñuy def loolu daal li ñuy ñëkke moy sant leen bu baaxa baax tey ñaan également ñi nga xam ne si ni ñooy suñuy IGP yi seen ay relais bu ñu leen sante ba pare ñu ñaan ak bàjjenu gox yi ñu ñaan leen ñu gën a sensibiliser askan bi di gën a waxtaan ak ndaw ñi di gën a waxtaan ak jigéen ñi ci wàllu maye deret ndax dafay doon loo xam ne si ni nit ñi taxul mu ubbiku ci seen bopp bu baax xamuñu ko bu baax a baax a baax a baax te nit ki def lu mu xamul ñaare du ko yomb te zone yu reculé yi daanaka liñ fiy def ay journée don de sang bariwul kon ñi nga xam ñoo fi nekk di yëngu nekk ay acteurs de santé muy bajanu gox yi muy relais yi muy ICP yi ñoom la ñuy sant di leen ñaan également ñu gën a sensibiliser askan bi ci lan mooy maye deret lan mooy njariñu maye deret loolu daal ñi ngi koy ñi ngi appel bi bu baax a baax a baax di ñaan ñu jàpp lañu si pour beneen yoon bu ñu ko defee ñu mën a am maanaam li ñu soxla ci maye deret parce que ñun objectif bi ñu visé woon mooy 250 ay xam naa amuñu ko bu ko jegee amuñu ko.

ñu def ay don de sang parce que acte bu noble la acte la boo xam ne si nii nit ñi mën nañ ci dimbalante ndax doomu adama bu fekkee am na ordonnance mënoo ko dimbali ci ordonnance tamit boo mayee dara rek mën nga ko sobee loolu lépp acte la boo xam si ni président lancé woon na appel bu yàgg yàgg yàgg suñu tour dafay doog agsi mais duñu yàq dara ci suñu parrainage parce que ñun démb lañ jot suñu ay fiche te fiche yi moom yaakaar naa rempli ko ça pose pas un problème parce que fii may waxee yow fa nekk boo xam ne si ni ña ngay parrainé ñu nekk fii di def suñu journée don de sang consultation gratuite yaakaar naa ni ñaari activité yu mën a ndax ku jaar fi bu fekke indal nga pièce danañ la wax nga jaar ci marché ba amna na ñu fa nek ño xamni ci ni nii danañ jël sa pièce jël le comparer lolu amut lu ñu yakal yaakaar naa au contraire dañu dimbali parce que c'est une pierre de coup maa len di nuyu bon man may monsieur tierno Aliou Silla man maa informer chef de poste bi nekk fii mubarak hmm? hmm ci activité ma ci and ak sama natango Bas euh, Basirou fay mo xamne moy ICP. bu nekk umul xuraa donc par rapport ak question bi nga ma posé euh, opportunité bi bon c'est-à-dire que euh, lii dafa ñëw à son temps parce que yàgg nañ ko fi di di bëgg xëy na peut-être amuñu woon opportunité kuñ ko kuñ kuñ ci mën a jàppale waaye bu ñu yàlla dimbalee ba jeunes yi ak dynamisme bu ñu am ak ànd ak Moustapha Seck ñoo proposé ma ko ah man teguma ci baat dama xam ne askan bi soxla nañ ko parce que ñun yàgg nañoo askan bi ñun ñoo fi nekk di liggéey ci wàllu wér-gu-yaram affaire bi réussir na parce que li ñu doon xaar suñu objectif li ñu doon xaar am nañ ko ci bien vrai que jeexagul ñu ngi continuer mais suñu objectif tay ci ci ci walu consultation gratuite bi hmm ñu doon xaar peut-être nañ am 300 personnes mais am nañ lu ko ëpp té paré guñu hmm ci walu consulta ki bi don de sang bi tamit mais ñu doon xaar am 100 poches mais sans poche bon xawna dess touti mais comme jeexagul gaay ñu ci liggéey bi mais yaaka nañ dañ fi am sans poche ak lu tek parce que instant bi ni askan bi soxla nañ deret gis nañ ni deret dafa manqué ci Sénégal yëpp jeunes yi ba ñu xalaatee ne mënuñ mënuñ fi toog lu lépp lu ñu mën def pour seen askan dinañ ko def ñu xala am initiative bu rafet boobu ñëw may deret waaw moo tax tey journée bi daal loolu moo dàkkoon opportunité bi première euh,